rek mu daal di nuyu téléspectateur yi nga xam ne moo ñu seetaan El Hadj nuyu naa maa ngi lay fay soxna si bàyyi nga am jàmm. maa ngi am jàmm bu baax a baax. alhamdulilah sant yàlla bu baax. c'est un plaisir El Hadj mu ñëw seet si la sama mbokku taalibe tey contentement la ak plaisir bi nga xam ne damay daal di jóge ba 7TV ñëw fii nga xam ne mooy HLM Point Yoff daal di la seet si donc dañ lay bàyyi nga daal di nuyoo euh, nuyu téléspectateur yi lay seetaan bu ko defee ñu yaatal waxtaan bi. amul benn problème. Euh, salaamaaleykum. man maa ngi tudd El Hadj Ibrahima euh, dëkk HLM Grand Yoff Pastab euh, bi euh, maa ngi nuyu képp kuy téléspectateur u 7TV di di leen dalal di leen takagal ci sama kër te di kontaan ci dalal leen ci émission bi akay ah, jërëjëf merci beaucoup El Hadj alors El ñu daal di ñëw seet si la tey bu ñu nee góorgóorlu c'est-à-dire dañuy daal di ñëw fekk si ki nga xam ne day daan dooleem yow sa góorgóorlu lan lan lan mooy sa métier bi nga xam ne moom ngay def. waaw bu ñuy wax góor góorlu nag euh, man dama choisir euh, domaine transformation transformation euh, des produits locaux ci domaine bi nga xamante ne moom lañ nekk ci transformation des produits locaux. c'est transformation des fruits et légumes euh, ci domaine spécifique bi nga xamante ne moom mooy transformation en jus mais defuma loolu kese euh, maa ngi def transformation fruit fruit yenn fruits yi defar ko en pâte pour faciliter exportation damay defar euh, de la poudre poudre par exemple la poudre de moringa la poudre de bouy yooyu tamit dama koy def et damay transformer samay déchets yi nga xamante ne moom la ñuy ci buy bi dama koy transformer en huile de baobab voilà euh, un fi mu nekk nii li nga xamante ne moom laa nekk di def ci euh, métier góorgóorlu comme ni ñu koy waxee. alors daal di gis ni booy wax on sent benn bi nga xam ne moom mooy wax donc euh, est-ce que euh, El Hadj il a déjà ses diplômes avant de venir. Euh, changer rek li nga xam ne mooy corps de métier ñëw ci transformation oh, waaw euh, mun nañu wax ni nag moo xaw nañ sori ci ci jàng bi euh, nous avons eu notre licence en sciences économiques et gestion à l'université de Cheikh Anta Diop euh, ñu jóge foofu def benn formation de un an Euh, dans le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes euh, PSJ ñu def fa un an génn ak suñu diplôme mën a gérer des entreprises qui font qui œuvrent en fait dans la transformation euh, dans la transformation des produits locaux mais yemuñ ci loolu euh, ñu ut benn formation en marketing à l'université de IAM euh, marketing et intelligence des affaires et nous avons fait deux ans dans le marketing et intelligence des affaires donc ce qui veut dire que suñu master bi deux def nañ ko mais pour des soucis personnels nous n'avons pas encore euh, soutenu notre licence voilà donc euh, souci personnel moom moo ñu ko duggee ba yàlla def ñu dugg ci transformation fruits et légumes yi transformation des produits ko voilà ba ça fait trois ans fi mu nekk ni ñu ngi ci loolu et euh, on continue notre bon nombre de chemin. en tout cas dërëm bi génnul ci gaal bi parce que dégg naa ci euh, li nga jot wax sa CV bi nga jot a expliqué def nga transformation en même temps transformation fruits et légumes alors dañu daal di ñëw ci li nga xam ne mooy transformation bi parce que yow euh, fuñ la yóbbu rek nga liggéey fa macha allah xarañte pour vous dire que jeunesse bi am na ñi nga xam ne. am nañ seen i diplôme am na ñi nga xam ne ay jàmbaar lañu am na ñi nga xam ne également xaar ñu dara ci li nga xam ne mooy gouvernement gouvernement bu leen joxee liggéey ñu liggéey mais bu leen joxul liggéey aussi ñu daal di jéem a liggéeyal seen bopp créer seen bopp et que Sénégal bu ñëpp meloon ni élage peut-être développement dina daal di yomb am ci mbirum réew mi si biir réew mi donc euh, tey dégg naa aussi nga ne si fruits et légumes bi da koy daal di transformer en pâte di ko euh, yóbbu niveau international comme ban exactement. ñu ngi jël di tax transformé ko def ko en pâte euh, mettre ko sous vide yóbbu ko à l'international surtout en France voilà. transformation yi c'est c'est très bien mais problème de conservation le le produit yu bari di am. alors bu ñëwee ci euh, tey fruits et légumes ngay transformé en jus. tey bu ñu ñëwee ci li nga xam ne mooy fruit yan ak yan ngay transformé. fruit yi nga xamante ne moom laay transformé buy la euh, bisaab rouge bisaab blanc jinjeer Dakar solom cocktail de mango mangue ak euh, ditax en période de saison saison buy ñëw daal ci lañ koy ci lañ koy transformé voilà euh, bu ñu buggee sax yenn saay en fait dañuy jouer ci saison yi. dañuy jënd une grande quantité euh, conserver ko def ko en portion conserver ko pour mën ko liggéey. bu nekkee ci légumes yi lan lan ngay def. Euh, bu fekkee ci légumes yi bon fi mu nekk nii euh, j'en fais pas trop juste en fait c'est sur commande mais genre bu ñu koy def c'est juste pour les produits yoo xamante ne ay produits amincissants yooyu lay doon par exemple mën nañ jël carotte avec des céleris. voilà moom la ñuy mélanger pour euh, pour ñi nga xamante ne ñoom ñooy soxla genre genre produit yooyu daal waaw mais on n'en fait pas d'habitude euh, sénégalais dañuy daal di bëgg également euh, jus de tomate jus de concombre et cetera yooyu noonu xam naa sûrement du ñàkk ne après émission bi dina am ñu la commandé yooyu parce que yooyu également mes sœurs la surtout jus de concombre alors bu ñu ñëwee ci li nga xam ne mooy tey sa variété yi nga xam ne moom ngay defar. alors ça te prend combien de temps pour nga defarandoo lépp parce que tey quoi qu'on puisse dire defar jus euh, ça peut être euh, facile comme ça peut être ne pas facile tu vois donc yow ça te prend combien de temps pour defar loolu bon pour benn production boo xamante ne euh, jus de bouille lay doon par exemple ça peut me prendre trois à quatre heures de temps parce que je fais pas de petites quantités par exemple bu may produire damay produire benn dix kilogrammes benn production de dix kilogrammes pour euh, après me retrouver avec benn cent à deux cent dix bouteilles si c'est des petits modèles yooyu yooyu daal en fait euh, laay laay quoi voilà c'est deux heures à quatre heures de temps ça dépend en fait de la quantité que je produis. daal di gis ne aussi ñun personnellement ñun ñooy defar tey jus euh, màdd bi ak mango bi. parce que yeneen yi euh, ak émission bi du ci xaj on a juste montré des bouteilles yi nga xam ne mooy bouteille yu jus yi la alors euh, boo defaree quantité yu bari yooyu ça dure combien de temps si yow. bu fekkee ni euh, on est en période hausse là on est en période hausse euh, au maximum ça prend trois jours trois jours pour tout écouler euh, le la production bi nga xamante ne moom laa am trois jours pour deux cent deux cent cinquante bouteilles. Tu t'en sors très bien. Oui, oui, on, on, règle un petit peu les problèmes. On règle un petit peu les problèmes. C'est surtout en, fa en fonction du, du, prix du produit. En fait, les Sénégalais sont très euh, sensibles par rapport au prix des produits. Voilà. Euh, la marge n'est pas grande, mais euh, avec la rotation, ca te permet de, de pouvoir en fait accumuler les, les marges pour pouvoir bien travailler en fait ci liggéey bi. genre da ngay jox sa prix ñu naan la wàññil ma te xamuñ ne la nga ca dépensé ak est-ce que loolu doo def sensibilisation bi parce que man dama koy dund. Ah, <laughs> à peu li ngay def moom laay def mais euh, <laughs> tam ñam na mu neex mu bëgg commander lu bari nee naa ko wàññi par force. man moom comme ni may waxee gars rek man dama leen di wax wax bu simple. Euh, ñam nga neex na prix bi cher na amul benn problème man xam nga la moom amal importance sa neex na en fait prix bi cher na loolu moom c'est relatif fois ça dépend de de chaque personne ça dépend de de chaque poche donc ku si nekk mën na gis ni lii dafa cher wala lii ban na cher en fonction de moom li mu yor ci poche am donc. Euh, na nit ki wax ni neex na rek parce que jaay qualité voilà moom moo am importance man pour man euh, déjà que ñun fi mu nekk nii sax ci niveau bu ñu nekk sax prix bi ñuy jaayee man pour man c'est c'est très peu c'est très peu parce que. day xaru yi ñuy jaay ay produits mënuñu wax nii bio la. ci sama àq la naturel la te kuy jaay produit naturel. produit naturel rek. naturel rek boo xasee ba wax ko mooy yaa ngi wax santé mooy yaa ngi investir ci sa santé te kuy investir ci santé am warul compter xaalis bi muy dépenser voilà parce que la santé n'a pas de prix balaa nga koy xam nga feebar war a dem hôpital ah, bu ñu lay facturer sa yoon du nekk ci li ngay fay na nga wër rek léegi ñun ñun en fait traditionnellement parlant l'africain dafa yàgg liggéey ci santé mooy dafa yàgg naan ay produits naturels loolu suñu taaw maam yi noonu lañ daan fonctionner ñu nag dañoo wàcc suñu ànd dem fekk ji ànd jàmbur moo tax nag doo gis longévité bu mag moo tax te terewul ñuy jéegaane li gën a bon mooy dañuy jéegaane li ñuy defar fii di dem di jëli produit yoo xam ne dañ ko importe xamuñ ni ñu ko defaree man su ma gisee kuy jënd jus de mango dëkk beneen dëkk. man nag may jaaxal. ci carton yi. yooyu nga xamante ne xamuloo luñ ko defaree. te yenn saay sax dëkk yi ñu koy defaree foofu kenn fa produit mango. ba pare prix bi gën a moins cher yow ñun li ñuy jaayee noonu war nga posé sa bopp question <laughs> war nga posé sa bopp question ne ñii est-ce que mango la ñuy jaay ah. walla leneen la ñuy jaay. alors euh, di sensibiliser waat rek donc suñu yooyu nga xam ne si yeneen dëkk yi la jógee donc il faut ñu xoolaat ko bu baax a baax naka lay duggee si réew mi parce que des fois nga gis yoo xam ne euh, doo xam ne ko lañ ko defaree comme élage nu mu ko waxee mais aussi doo xam fu mu jógee ba pare le pire papier bi nekk ci biir mën nag créer yeneen euh, dégâts yi nga xam ne dégâts santé lay doon donc yi nga xam ne mooy produits ko yi nga xam ne la defaree Sénégal c'est mille fois mieux te loo xam ne Sénégal man li ma si jaaxal mooy suñu dëkk dafa naat macha allah lépp dafi am mais comme ni nga ko waxee dañu bàyyi suñu ànd dem ci àndu jàmbur moo tax it guddatuñu fan. <laughs> alors ñu daal di ñëw eh, ci eh, li nga xam ne mooy méthode de liggéey bi ngay li ngay liggéeyee donc ce prix ça varie de ñaata ba ñaata. samay prix euh, damay produit jus bouteille yi ndaw yi maa ngi koy jaayee pour le moment deux cent cinquante francs c'est pour faire la vulgarisation des produits locaux. jaay. à un moment donné nga yokk wala nga wàññi. yokk wala ñu wàññi. ba nga si man euh, la plupart du temps instant bii nii ma nekk nii dama stabiliser sama prix euh, en foog même bu fekkee dafa yokk dama koy bloqué fi nga xamante ne fa la nekk parce que euh, bon bien que nag fi mu nekk nii euh, on sait que fi mu ne dëkk bi neexul yombul vraiment c'est pas facile du tout. donc euh, dañu stabiliser prix yi pour que pour permettre le maximum de personnes ñu mën a avoir accès ci li nga xamante ne mooy produit bi voilà léegi bon bu ñu demee nag ba yegg à un certain niveau dootoo mënati jaayee li nga xamante ne moom mooy prix bi 250 francs parce que on sait que euh, fluctuation marché yu pro ñun suñuy produit vraiment war nañ ko mën a xam da ngay jëlee buy <laughs> day tàmbalee trois cent wala quatre cent francs wala cinq cent sax au maximum tàmbalee yóbbu yóbbu la mille deux cent à l'instant T on peut voir que c'est entre mille francs et mille deux cent francs exactement donc euh, du simple au double dépassé na loolu loolu entreprise boo xamante ne waaw dëgërul day ñu bëri ñu bëri dañuy dañuy arrêté j'ai l'habitude de le dire buy moo nekk euh, euh, euh, loo xam ne pour nga gaaw da nga ciy gaaw a perte amul benn bénéfice pour nga daanu ci moo gën a facile comme j'ai dit man je bio alimentaire te buy laay utiliser donc buy bi pour nga daanu si c'est très très facile donc amul benn bénéfice moo tax bu ñu leen waxee prix rek day leen nangu prix si di waxaan <laughs> pour nga may jaay kanamu touriste yow sa der tey dama koy yàq alors nga ne benn bi 200. deux cent cinquante laay jaayee euh, les gran formats mooy un litre yi mille cinq cent laa koy jaayee yooyu du ma ko changé je ne bouge pas mille cinq cent laay jaayee li nga xamante ne moom mooy mooy non un litre deux cent cinquante millilitres non defaru j'ai choisi en fait de vendre ça par souci en fait ci li nga xamante ne moom laay liggéeyee euh, damay utiliser sama chariot dama ci am glacière glacière boobu dafa am quantité de jus bu boo xamante ne mën na ko jël mënul dépasser loolu donc bu fekkee da ngay changer format dafay indi euh, ay complications ci glacière bi ni ma koy utiliser. ñu daal di ñëw ci euh, bouteilles yi parce que gis naa derrière nous am na ay bouteilles yi nga xam ne euh, moom nga def à côté te bouteilles yooyu ngay defaree sa jus également. exactement ah très cher. waaw exactement parce que euh, comme on dit euh, quarante neuf francs <laughs> si prix de l'emballage waaye kay naa bu koy ko ko jaayee 49 francs. mën nañu ko jëndee sax 60 francs. parce que déjà euh, 50 coûte maintenant à francs. donc, donc francs li nga xamante ne moom mooy euh, bu fekkee da nga dem ci dans les marchés hebdomadaires. bu fekkee da nga dem ci usine ba wuy euh, euh, bu fekkee da nga dem ci usine ba mais quoi qu'il en soit euh, bon ça c'est des avantages ça c'est inconvénients mais li ci gën a métti mooy en fait dafa am dafay jël benn coût élevé en fait dans ton chiffre d'affaires quand on regarde moi je vends à 250 calcul on est à 25 25 à entre 25 et 30 pour cent du chiffre d'affaires donc loolu rek boo ko calculer vingt cinq du service intéresse la soixante quinze pour cent <laughs> Tamsir kii vingt cinq euh, wala trente yow xaar yow boo nekkee vingt cinq wala trente man ñaata pour cent la ah en tout pour cent la <laughs> en tout non en tout cas euh, bon euh, ci benn instant bon on peut pas on peut pas trop nag regarder en fait euh, li nga xamante ne moom la client bi il faut faire de la segmentation aussi ça bon euh, c'est obligé quoi mënuñ ci dara voilà c'est le marché qui est comme ça am na ñuy jaayee cent francs ñu ngi ciy génn am na ñuy jaayee deux cent voilà am na ñuy jaayee deux cent cinquante te mën nañ ci bëri génn. ñu bari duñ ci gaaw a génn parce que am na ñoo xam ne bu ñuy jaay jus yi dañ koy mel ni comme bu ñuy defar seen kër. voilà dañuy defar meew bu bari. defar yenn chose yu bari voilà donc moo tax ma ma choisir parce que ma ne bon bàyyi ma yóbbu ko du normalement normalement bu fekkee dama ko teg ci ci yoon rek 350 lay jar. xanaa man sama ba 500 lay jar tam. ah en tout cas moom dëgg dëgg dëgg dëgg. quand en fait ñu teg ko rek ci liñ jàng ak ni ñu koy doxalee et tout bouteille yu 250 cent les 350 francs rek. moom ak Kader ñoo toll fi ñu war a toll parce que dëgg-dëgg moo daax kat 350 400 ça dépend si kii jooju. te pourtant am na yoo xam ne c'est pas des produits locaux. nekkul fii la ñuy lay lay jugee nekkul si dëkk bi lañ koy defaree si yeneen réew looy defaree te sénégalais yi duñu jënd jamais li nga xam ne seen nawle moo koy jaay. dañuy préféré dem jënd euh, yëfu jàmbur loolu tamit il faut ngeen bàyyi ci xel te di jàppale seen doomu réew ndax bu ñu jaayee rek. seen développement wu dëkk la donc tey El Hadji Ndiaye ngeen ñëw jënd ci moom El Hadji li muy jëndaat si dëkk bi lay demaat Kéna di jaay ngeen jënd si man Kéna li muy jaay si dëkk bi lay demaat donc mu ngi noonu alors ñu daal di ñëw gis naa également benn bouteille fële ne bouteille d'huile du huile de baobab mu ñëw voilà huile de baobab baa ngi nii pépins yi nga koy defee euh, pépins waaw doom yi nga xamante ne moom la ñuy utiliser mooy euh, déchets yi nga xamante ne moom la ñuy ci buy bi moom lañuy ñuy jël euh, réutiliser waat ko yóbbu ko ci pressoir bi mu pressé ko génneel ñu huile de baobab pure ñu mën ko jaayaat ñi nga xamante ne ñoom ñooy ci liggéey dans le ni naturel voilà noonu lañ koy liggéey daal ñi nga xamante ne ñooy liggéey dans le domaine naturel dañuy bëgg di liggéey ñoom euh, di leen proposer ay produits naturels yoo xamante ne amul dara luñ ci yokk te euh, c'est naturel. Voilà. en tout cas c' est c' est très comme j'ai dit le baobab dafa nekk euh, produit bi nga xam ne c' est très efficace pour les cheveux pour le temps ak yeneen affaires yi nga xam ne euh, moom lañ koy daal di defaree en tout cas euh, man j'aime bien le baobab je suis sérère comme j'ai l'habitude de le dire sama point fort mooy abaax yéen séeréer yi bu ma nee abaax rek di ngeen comprendre xam nga <laughs> abaax <laughs> mooy buy voilà buy mooy baobab abaax donc voilà c'est très très efficace et puis voilà donc élage euh, liggéey bi di ñu xaar tamit bari na faa ñu dem defar li nga xam ne mooy mixage bi màdd mangue bi loolu war naa mën a neex torop lool sax nga ne ko très <laughs> naturel te <laughs> neex alors Tamsir dañuy ànd ak moom ñu daal di dem ndax euh, pareeguñu nag après dinañu woon Euh, bu paree naka lay jaay jee ak ban façon jaay lay daal di def bu baaxee rek tam nga accompagner ñëw gis ngeen nag euh, li nga xam ne mooy euh, finition wu bi njambaan lañ koy sax <laughs> bi ma gis la moo yóbbu sama xel <laughs> donc mu daal di defar cocktail jus mangue at euh, rek li nga xam ne mooy màdd. bu ñuy def production jus màdd mangue dañoo mixé li nga xamante ne moom mooy mango bi jël màdd bi jàmb ko ba mu génnee li nga xamante ne moom mooy jus léegi bu ko defee ba pare après ñu boole ak mango bi. tamiser ko ñu ko tamiser ñu sucré ko parfumé ko mu jox ñu li nga xamante ne mooy goût unique naturel li nga xamante ne moom la war a am. Euh, quelquefois am na entreprise locaux yi nga xamante ne ñoo fi nekk euh, surtout local yi nga xamante ne mooy fast food yi yenn restaurant yi euh, dañ leen di fournir mise à part li nga xamante ne moom mooy man sama vente direct li nga xamante ne moom laa am ak sama clientèle. du ma ko wàññi du ma ko yokk c'est le même prix 250 francs moom laa koy jaayee. jaayee 500. cent 500 300 à eux de voir en fait euh, prix bi nga xamante ne moom lañ bëgg a jaayee ci marché bi. alors après étape bi buñ fi jógee lan ngay de damay solo ji préparé wu euh, sol sama tenue dem génn dem jaay. alors c'est toujours un plaisir dajeet dalal ñi nga xam ne dañuy daal di góor góorgóorlu tey gis nañ ne El ay avec ses diplômes euh, même ses diplômes daal dina def li nga xam ne euh, mooy entrepreneur nekk ko di defar li nga xam ne mooy entreprise boppam di jaay c'est un plaisir El Hadj c'est un plaisir partagé euh, j'espère que nañ ko partagé ak ñëpp dinañ mën a inspirer ñeneen ñoo xamante ne am nañ yeneen projet ñu mën a tàmbali ci dara eh, yàlla def ñu mën ci développé. alors ñu daal di la bàyyi nga tàggatoo tàgg say mbokk ñi lay seetaan pour ñu joxante di daje eh, ba beneen yoon. waaw maa ngi tàmbali di remercier sama yaay remercier sama papa remercier ñi nga xamante ne ñoom ñoo may jàppale ci projet bi ah, moo di sama soxna moo di samay frère moo di eh, képp koo xamante ne daal sama am lu jàmm nga. maa ngi lay remercier ci projet bi nga xamante ne moom ngay jàpp di di ci def sa loxo di si def sa doole di si def say idée ba projet bi di màgg di dem yàlla ñu si def ñu am usine de production loolu mooy suñu souhait yàlla ñu si yàlla yeggal ak jàmm. merci beaucoup c'est un plaisir dalaloon ki nga xam ne tey moo nekk El Hadj donc un jeune homme très ambitieux un entrepreneur bi nga xam ne comme ni ma ko waxee sa jël ba ak ses diplômes également moom moo ngi daal di def entreprise am këram di jaay mais aussi bu defaree jus am transformation ba pare defar ay huile ak ay poudre moringa euh, dafay daal di jëlaat li nga xam ne mooy chariot wam dal di jaay ay client wam ah, donc di ko jaajëfal bu baax a baax c'est un plaisir El Hadj dalal la mais aussi di wax merci beaucoup am Bamba bi nga xam ne euh, moom mooy ñu mettre en rapport di Bamba Tra mais du ma ne au revoir nag te waxuma merci à mon caméraman de tous les temps sonal naa ko lool euh, <laughs> Tamsir Tamsir merci à toi di remercier sama sama monteur bu rafetee moom la mais bu euh, filmé bi naayisee rek Tamsir moo fi jaay di wax merci beaucoup à suñu suñu assistant bi nga xam ne moom la ñu am tey di doomu El Hadj trois a 3 ans il a 2 ans mais xoolal liggéey bi yëpp moo ko jàpp liggéey na liggéey bu métti di wax merci beaucoup ñoom élage ñi nga xam ne macha allah dalal nañu bu baax a baax ci kër gi daal di ñu euh, euh, toggal añ bu neex a neex di leen jox di daje incha allah euh, ci beneen numéro góorgóorlu sur ce prenez soin de vous et à la prochaine incha allah